jërë ngeen jëf mbokki internet de Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balaq di leen jox seen wàccuwaay bu baax euh, di nuyu ñi xam si ne ñooy topp suñu émission bi di la voix du peuple di jégalu la bu baax baax xaw na yàgg bi ñu ko gëj a def waaye ay problème temps la woon rek euh, ñi ngi temps vers des élections euh, élections municipales tey nag am nañ fii suñu benn gan di nom de Moustapha Diakhaté nekk chargé de communication coalition diso disoo xarnu bi disoo ci xarnu bi n'est-ce pas euh, ñu war a waxtaan ci li nga xam si ne mooy élection yooyu nga xam si ne moom lañ dëgmal ak moom en tant que candidat naka lañ fas yéenee doxale donc sëñ Moustapha dama lay bàyyi nga nuyoo internet yu Rafah TV la tant que ñu dégg ci laaj yeeg tontu yi. salaamaaleykum sëñ Sini ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu bépp internet boo xam ne yaa ngi bàyyi xel site bu mag bi di Rafah TV fii di sant bu baax ci occasion bi nga xam ne may ngeen ñu ko ci ñu mën a ñëw fii tey ngir jàkkaarloog askan wi waxtaan ak ñoom ci euh, élection yi ñu jublu di élection locale maanaam élection gox ak goxaat muy élection départementale di ñaan yàlla suñ kàdd gi ñu yëkkati euh, lépp doon jëriñ. Hmm. jërëjëf. Hmm. jërëjëf sëriñ Moustapha ci nuyoo am solo boobu xam si ne nuyoo nga ko euh, di ñu dikk rek donc directement ci laaj ak tontu yi. d' abord fi nga xam si ne mooy département bu Mbacké su ma jumul yaa cinq candidats. Euh, yow yaa ngi bokk ci coalition bi di coalition diisoo ci xarnu bi ki nga xam si ne moo ko jiite mooy Abdoulaye ñaan euh, d' abord élection yi nga xam te ne moom mooy ñu dëggal muy élection départementale lan mooy conseil départemental. jërëjëf Serigne Sini euh, élection départementale wala sax bu ñu naan locale. ñu bëree bari ñu léeg ñenn ñi dañuy taayee voté ji ñenn ñi xamuñu dëgg-dëgg lan mooy élection départementale ndax commune bi euh, ñaari liste fa nekk mooy liste bi nga xam ne ci lañ investir ka nga xam ne bi teg ak bulletin blanc. liste boobu ñu ko day jàll ñu ñàkk ko voté day jàll parce que ndigalul sëriñ bi la loolu amuñu ci luñ ciy wax amuñu ci yàq amuñu defar. li ñu li ñu bi nga yeneen yi nga xam ne nag mooy cinq listes yi di élection départementale ñun ñoo ko seq ñun coalition diisoo ci xarnu bi. Eh, Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal Benno Bokk Yaakaar ak Bokk Gis Gis ñun ñun juróomi mbër yooyu ñoo nekk ci eh, di di xëccoo conseil départemental mu mel ne nag eh, am na président sortant président sortant bi sëñ Fallou lañ koy wax jiite woon na conseil président nekkoon na président conseil régional benn mandat nekk président conseil départemental deuxième mandat kon troisième mandat lay laaj hmm. kooku damay wax chaque jour ne kuy bañal Macky Sall troisième mandat koo nangul keneen deuxième point bi mooy euh, Serigne Cheikh Mbacké moom la wàllu Sénégal investir moom it mu nekk adjoint président conseil départemental mmh, moom it nga xam ne am na fa ay avantages yu bëree bari par exemple am na lu ñu ko fay fay ñu ngi ko fay jox gasoil di ko fayal safoor ak yeneen waaye taxul mu amoon mu am fa taxawaay bu wér kon moom mu ngi ci biir conseil départemental bi ku ñuy wax si Abdou Bara Dolly aussi mi ngi ci biir conseil départemental bi. Hmm. te liggéeyuñu as liggéeyuñu askan dara. Matar Diop bokk ci liste Benno Bokk Yaakaar moom it mi ngi ci biir conseil départemental bi léegi nag ñoom ñëpp ñoom ñoom ñoo ñoo génn ku nekk samp sa ndënd di laaj conseil départemental bi waaye tey ñoom li leen ñun kat nangam at yii ngeen fi teg lii lañ leen liggéeyal waaye mënuñoo teg dara ci loxo askan wi loo xam ne mën nañ ne lii lañ leen liggéeyal ba pare tey kenn ku ne génn ngir laaj mu mel ne kon affaire bi du intérêt commun maanaam nekkul loo xam ne dañuy jàmm soxla askan waaye dafay mel ne seen intérêt personnel moo tax kenn ku ne génn samp sa ndënd Ablaye ñaan nag ci biir juróomi candidat yooyu damay damay présenté kan mooy Ablaye parce que Ablaye fii la dëkk fii la juddoo defe fi lépp jàngit ba am doctorat doctorat mooy jàng ba fi njàngum tubaab yam bi yàlla dogalee mu jóge ci loolu dafa dugg enaam génn nekk inspecteur des impo principal moog Ousmane Sonko mi ñoo génn woon impôt euh, du fi comment dirais ENAM mais moo nekk moo nekkoon major maanaam moo jiit woon Ousmane Sonko topp ci. Mm-hmm. yàlla dogal mu servir impôt fukki at ak juróom wala fukki ak ñeent euh, waaye xaarul ñu di ko dàq dafa démissionné ndax nguur gii fi nekk nii. yàlla dafa dogal booy booy booy jàmmarloo ak ñoom ci côté politique yor loo xam ne lenn loo xam ne ñoom ñoo la ko dénk dañ lay indil ay gàllankoor mu démissionné démission bi lan moo ko waral. damay dugg rek ci eh, lan moo tax mooy conseil départemental parce que conseil départemental taxu ko jóg ndax conseil départemental dama naan lañ cay fay da koy ñàkk ci ñaari fan kon kooku lañ ko fay fay taxu kaa jóg waaye dafa fekk ne Serigne Cheikh Gaynde Fatma mi nga xam ne moo tabax école yi ci Touba nga xam ne moom la jaar yàlla dogal mu jaaree fa am ndax daara Serigne Serigne Abdou Hakim la njëkkee am euh, la a xam waaye Serigne Abdou Fatam Serigne Cheikh Gaynde Fatma moo ko dugaloon ci école tubaab yi nga xam ne Serigne Cheikh ko tabaxoon fii ci Daara Khoudoss Euh, Serigne Cheikh ba mu koy tabax jubluwaayam bokkoon na ci nañ jàngal suñu ndaw loo ko mooy ëllëg ñeneen danañ jàngal seen ndaw ñu jiite ñu seen jikko tey bu ngeen xoolee ñu jiite réew mi depuis 1960 ba léegi ci seen jikko la ñu jiite mooy sàcc alalu askan wi wax nit ñi dëgg xastante saagante loolu la ñu jiite. mu mel boo dee xool bëri na réew yoo xam ne ñun ak woon ñoom ñoo amandoo woon indépendance wala ñoo xam ne sax ñu ñoo leen njëkk am indépendance mais raw nañ ñu lan lañ ñu gënee mooy ay njiit yu baax njiit yu gouverner yu baax lañ ñu gënee ñun nag loolu dafa bokk ci li ñuy xeex ndax euh, boo gisee ma ne la conseil départemental dëgg la am na solo ndax dina tax nga gën a jege askan wi ndax conseil nekk président conseil départemental day tax yow département de Mbacké par exemple yow yaay ki nga xam ne diggante nguur gi ak département bi yow yaa ciy dox. ku ne xam ne ne soo jógee Ndakaaru par exemple tey wàcc ci autoroute à péage bi damay wax sax ne autoroute bi bu fekkonte ne diggante Ndakaaru ak Ziguinchor la gën a baaxee ndax jàpp naa ne seeni boo doon ubbi boo ko mënee marché boo ko amee marché occas boo ko mënee am marché occas fa la gëne mm-hmm. ndax fa la fa la njaay ma gën a doxee ci suñu yaakaar mm-hmm. looloo tax ñoom ñu ubbi ko ci diggante Touba ak Ndakaaru parce que fi la gën a li fi day jógeen Touba dem kenn xam nu mu toll mm-hmm. tey wàccee Touba néew na nga dem ci dëkk yi war Touba nga xam ne yeneen ko am yoon bu baax loolu li ko waral na mooy ay njiit yu tële tey Touba dañuy faral di wax ne amul boroom xam-xam maanaam ci wàllum tubaab dañ naan la ay nekkuñu fi wala boog ñi xam ne chaque jour ñoom ñooy ngànk réew mi duñ bëgg a fal borom xam-xam parce que xam nañ ne Touba dayoo bi mu am ak li fi nekk ci population buñ leen yeewee ci xam-xam war a xam ne war a xam ne ñoom dañoo bokk ci ñiy yor réew mi bokk ci ñiy jiite dëgg dëgg dëgg bañ leen a nax rek ki di ab taalibe la bi mu ñëwee sëñ bi dafa sukk dafa loolu ay nax la parce que man loolu man duma ma ko considéré comme taalibe taalibe buy dabee déedéet man dama xam ne dañuy yor yarub sëriñ bi juddoo fi yaroo fi màgge fi ba pare nekk ay xam-xam de haut niveau maanaam nekk ci kaw di wax ak ñi ci kaw di wàcce li ci kaw di ko indi ci suuf ñun ñooñu la war a waxal waaye waruñoo wax am Idriss Seck moo xam ne tey jii suñ ko joxee dara cees lay lijjanti am Ousmane Sonko moo xam ne bu ko joxee dara Ziguinchor lay lijjanti parce que Ziguinchor Ousmane Sonko samp na. samp samp samp na dëndam Ziguinchor. bay ci sa wew tànk. waaw waaw waaw. ca ba ba bay balaa neex. Mhm. da ngay tàmbalee sa wew tànk. foofu la ku nekk ci ñoom tamit loolu ma def man au contraire. Mhm. au lieu que ma dama leen ciy tàgg. Mhm. ndax sa dëkk da ngay defar dëkku jàmbur. foofu laa jëm nag. Mhm. foofu laa jëm Sidi da ma accompagner ma li ma li bëgg a wax. Mhm. ça veut dire ñoom ña nga war a ne. merci Idrissa Seck fexe na ba waa Thiès samp ko nga xam ne ku mu jonganteel daf lay gaaj. Mhm. Ousmane Sonko dem na ba waa Ziguinchor nangul ko mu samp dëndam Ziguinchor te jàpp nañ ne mën na am dam du dëgg léegi Touba kan lañ samp doo ne ma kii lañ samp chaque jour que jëfee bu élection jotee Idriss Seck day ñooñu bu ñu xeex dañu xeexal waa Touba parce que élection day jot ab am ab candidat am nangam jóge fële euh, da da jóge Ziguinchor wala mu jóge Saint-Louis wala mu jóge wala mu jóge feneen ñëw fekk fi ay maire mbootaay wala nangam jël alalam xëpp ko fi am fi électoral boo xam dina ko permettre mu jàll assemblée nationale mais su gagné keroog lay mujjee xam soxla sa waa Touba. loolu moom jikko loolu moom moom jikko politicien la moom. su mu fekkee na jiw moom pas jikkoy politicien xam nga nit ñi dañu war a xam ne ñun fi ñu toll nii dañ leen war a yee ci carte électeur bi ñu yor mooy lan gis nga nit danga war a xam ne carte doomu aadama bi da nga war a xam ne carte électeur bi nga yor ci la sa waxuma la non seulement parce que ñun ñi ngi lijjanti suñ bopp waaye suñu njaboot ëllëg lan lañ fiy fekk est-ce que dañ fiy fekk tappale yii ba léegi maanaam tey politique mooy lan politique mooy fexe ba saw jàmm ba saw askan am jàmm bu ñu feebaree yàlla bu kenn feebar waaye bu ñu feebaree mën a faju faju mu baax ba pare yomb seen dund yomb ñu am sécurité bu ñu bëggee liggéey liggéey liggéey bu am bu baax ba pare bu ñu tëddee seen xel mën a dal beneen bi mooy xëyum ndaw ñi yomb aussi loolu defe naa boo ko dugalee ci diine branche bu am solo la ci mhm. mais nit ñi xamewuñ noonu ne xamuñu loolu maanaam dañuy jël benn sambaay boobu jógee fële jox ko seen carte électeur ndax 5000 10000 20000 100000 francs yu mu leen di may voté leen mais kooku voté luñ ko par conviction daf leen a jënd kooku nag su demee ba gagné nag du leen gess parce que xam na ne ñii kat alal la leen jënde woon waaye joxuñu ko woon seen carte ndax conviction day jàll ci leneen. Mhm. loolu nag la ñuy xeex bëgg mu jóge fi dañuy wax ne Touba. il faut ñu xoolaat ñun suñu bopp politiquement tey koo fi xool mu ne la man Idriss Seck laa man Ousmane Sonko laa man nangam laa lan moo tax mënuñoo jël ku mel ne docteur Abdoulaye Niane mu nekk ci dëkk bi juddoo fi màggee fi ba pare am engagement politique xastewul saagawul doxul ci lu ñaaw kenn mësu ko dégg ci lu bon. ba pare ba ñii di wax nii politiquement ñëpp moo leen ëpp xam-xam tey ñii ci département de Mbacké nii par exemple ñi rawatina ñi nekk Touba nii di politique am engagement bi mu ñii ñii di laaj conseil départemental bi moom rek moo ci nekk candidat boo xam ne soo ko joxoon réew mi tey bu subaa mu gouverner mais ñi des ñëpp député gi ñu doon sax dafa ëpp ci ñoom. parce que député nañ koy fale xam-xam ak engagement gis nga dañu toll ci jamono boo xam ne. Hmm. ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ chaque jour dañuy moytu. ñi nga xam ne dafa am lu ñu rus am lu ñu jomb chaque jour dañuy moytu. ñi nga xam ne nag ñooy réussir ci politique mooy ñi nga xam ne xastante saagante yooyu rek moo leen moo moo leen ñor ak waxante lu bon hmm. léegi nag su ko fekkee ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ wala ay gor lañ dañuy moytu ñoom suñu àggee ci kaw lan la saaga yooyu ak xastante yooyu nga xam ne moo leen yóbbu ci kaw moom la ñuy représenté hmm. tey bu ngeen xoolee ñi ñuy représenté assemblée xam ne hmm. ni ñu représenté ba pare ne wane ne Touba lañ ko ñun waa Touba ànduñ ci ànduñ ëllëg si toutefois nekk ngeen conseil wala yéen ngi bëgg a nekk yéen ngi bëgg a nekk conseil départemental ci mm-hmm. au niveau de Mbacké mm-hmm. lan moo leen poussé à ce que ngeen bëgg lan moo leen naqari ba tax ngeen bëgg a nekk candidat ba tax ngeen bëgg a nekk conseil départemental xëy na dafay mel ne sama réponse dafa jiitu sa question maa ngi koy maa ngi koy wax sànq nga dënkal ñu ko de façon résumé li ñu li ñu li ñu naqari mooy li ma doon wax sànq bokk na ci ni ñu jàppee waa dëkk bi politiquement maa ngi la koy wax sànq ñëw électoral bi fi nekk gars yi di ko séddoo di dem ñuy voté ñeneen da ngay jël exemple tey ci Idrissa Seck Idrissa Seck présidentielle dañ ko voté. mais est ce que est ce que fi ngay wax ne bu fekkee daf leen ne yow askan wi moo a am amuñu ko. Mm-hmm. a nekk la pour jox mm-hmm. bu fekkee nekk inspecteur bu fekkee xam nga lan mooy inspecteur des mm-hmm. principal nekk ko fukki at ak ñeent kooku bu fekkoon daan na sa intérêt personnel la fa ngay toog bi mu jógee ci loolu noonu créé partem tuddee ko Teraanga Sénégal par exemple tey dañoo wàcc ci askan wi di financer jigéen ñi ci ay financement yoo xam ne amul benn intérêt ak di leen defal ay formation yoo xam ne duñu leen ci laaj dara di leen jox seen ay diplôme parce que nag jàngal ñan ñoo doon def ñun ñoo ko doon def ànd ko ak docteur Abdoulaye Niane dem bay créer ay li ñu wax mutuel de santé maanaam ci ñi nga xam ne dañuy feebar te seen loxo jotul seen ginnaaw bu ñu amee ordonnance junni war fay ñaar téeméer pour faju bu ñu amee ordonnance ñaari junni par exemple war a fay ñeent téeméer li ci des Ablaye ñaan moo ko doon fay ci poosal boppam te ku ne xam ne la mais de yoo xam ne dañ koy samp nga xam ne soo amee ordonnance bu dee junni la ñaar téeméer ngay joxe ngir lan ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw ñu mën a faju dem na bay jël ci poste boppam di def assainissement maanaam foo xam ne dafay taa mu def ko ak canalisation boo xam ne bu ndox bu ndox bu fa wàccee day dem xam ne loolu commune la waroon wala état kooku nag ñu jàpp ne kon ah, bu fekkoon loolu ban jéego ban fan ngeen ci def fii ci Touba fii Daaru Xudoos soo jógee Daaru Xudoos jëm garage Daaru dayeet ci kanam nii sax fa laa jëm boo jógee Daaru Xudoos jëm jëm jëm jëm garage Daaru fi ñu doon wax euh, fi labo bi nekkoon fu diggante foofu noonu ak station bi Abdoulaye Niane moo yëkkati xaalisu boppam def ko ak ay ay tuyau canalisation ba egg ci intersection bi ci Darou Khoudoss nga xam ne tey bu nawet jotee su commune defee entretien rek bu tawee ndox day jàll. loolu moom moo ko def loo xam ne commune la waroon wala boog ñu ne état la war mu yëkkati ko ci mm-hmm. a mënut daj fépp. nekk ngeen nekk ngeen conseil départemental. Mm-hmm. a xaar ci yéen. kan moo lan xaar ci ñun bari na ndax damay wax chaque jour que ne damay doon wax sànq de Ablaye bu fekkonte ne intérêt boppam moo ko ñor du euh, du du mën na sax bañ demande demander conseil départemental mais conseil départemental aw yoon la woo xam ne daf ciy jaar pour mën a yéeg ci kaw léegi moom dafay bëgg bu yéeg ci kaw mm, waa dëkk bi ànd ko ak moom ndax jàpp naa ne par exemple tey caméraman bi journaliste bi kiy jaay ci marché bi ak borom xam-xam bi buñ boolee seen ay force li bëgg mën nañ ko am. Mm-hmm. bañ jël bañ a bañ a bàyyi rek seen dëkk noonu fu waay neex ñëw jël fi électoral dem boo boo paree dem gañe liggéey sa dëkk. li ñuy xaar ci ñun nag bari na. ndax ku xam Touba xam ne eh, liggéey amu fi maanaam xëyum ndaw ñu dafay manqué trop dafay sooxe li waral loolu bokk na ci. tey da ngay xool Touba ñu la mooy deuxième ville du Sénégal maanaam bu Ndakaaru jàllee moom moo ci topp. Mhm. li fi nekk dëgg-dëgg sax ci population bi fi yeewoo sax dañ koy nëbb. bëri na trop léegi ñu ne la Touba mooy deuxième ville du Sénégal tey boo demee euh, taabal ba nga xam ne nii fa la Macky Sall di defee conseil des ministres par exemple tey nga xam ne dana fa toog lu mot rek lu ëpp ñeent fukki ministre par exemple tey amul benn ministre bu fay toog bu waxuma la dëkk Touba waaye bu dëkk département de Mbacké loolu lu ñuy ñaawlu la mhm. li tax loolu bokk na ci li tax xëyum ndaw ñi di gën a manqué ndax tey bu fekkonte ne ministre euh, euh, ministre xëy na amoon na daana am waaye duñ fa yàgg duñ fa taxaw est-ce que bi amee def na loola euh, danga may may mais ci jamono ji ñu toll laa la wax mhm. ci jamono ji ñu toll nii wax ma rek ci taabalu conseil des ministres bu Macky Sall kan moo fay toog koo xam ne nii dëkk na Touba amul ba pare ñu la Touba mooy deuxième ville du Sénégal wala ñu ne la taabalu conseil des ministres am na ko fay toog ku dëkk ci département de Mbacké amul mm-hmm. ñu ñu fay waxtaane réew mi di fa séddalee li nga xam ne mooy jëm ci réew mi kon dafay mel ne considération bi ñu jox waa Touba ne amul ay borom xam-xam ñoom dañ koy dëggal fu ñu toll comprendre léegi nag ma di la wax ne la loolu noonu bu fekkonte ne tey nommé nañ fi ñetti ministre par exemple tey nommé fi ay directeurs généraux par exemple tey ministères yooyu am ay ay ay cabinet am ay direction am ay sous direction am ay nangam tey dina permettre tey jii siini mii su bëggee def stage wala mu bëgg a liggéey wala nangam mu dem ci mu mën a jaare foofu mm-hmm. comprendre nga xam ne kon ni ñuy séddalee branche yi nga xam ne mooy doxal réew mi ñun dañ ñu cee bàyyi ginnaaw toujours rek dañ ñuy sédd waaye bokkuñu ci ñuy séddale ba léegi mm-hmm. loolu dafa bokk ci li ñuy ñaawlu mm-hmm. may wax ne Ablaye Niane bu fekkonte ne may ma eggalef daaneel foofu la ndax bi mu fa bi mu demee élection législative 45 liste la woon moom moo jëloon 15 bi mu fa jógee dëkk bi ay kilifa bëggoon nañoo jël dossier par négociation yóbbu ko ci euh, président pour mu nommer ko ministre mu ne loolu du ko def moom day bëgg li muy am ci politique wala boog la muy doon ëllëg waa Touba def ko ko ngir mu mën a jaamu seen soxla hmm. te beneen bi mooy nit ki bu fekkee ne daf la abal ay bët fu ko neex ngay xool ndax bu fekkee ne nag par négociation nga dem soo demee fa ngay xool hmm. bu fekkee ne nag waa ñoo la jox ñoo ko jox kàddoom hmm. ba mu doon li mu war a doon su ëllëgee day mën a xeex ak ñoom li nga xam ne moo yelloo Touba mu mën ko fee indi ñun ci loolu nekk waaye bu fekkoonte ne intérêt boppam dong la mën na jógee impôt ndànk raam nekk ministre raam nekk leneen te kenn du koy parce que am na ñeneen am na cadre yoo xam noonu la ñuy def parce que xam-xamam waxuma la Sénégal waaye bitim réew sax ñu ngi koy jëriñoo. Mm-hmm. bu fekkee dégg naa la bu baax. Mm-hmm. benn projet la xaar ci yéen muy xëyu ndaw ñi. xëyum ndaw ñi daf bokk. Mm-hmm. xëy nga xëy ne Touba booy wax ci département de Mbacké ndaw ñi daf ci am solo trop ndax fii ku jóge ci daal ngay def métier ngay def amul benn boo xam ne nit ñi mën nañ ca daan seen ay doole nag bokk li nga xam ne conseil départemental bi bu ko Ablaye Niane jëlee dana ci dox lu ama am solo ci ay projet yoo xam ne mi ngi tege ci table ji loo xam ne ñu jox ndaw ñi jox ko wala boog askan wi jox ko seen kàddu rek moo teem def ko mm-hmm. incha allah parce que nag nit la koo xam ne xam-xam permettre na ko mu jëlee ay ay mu jëlee njariñ ci kaw wàcce ko ci suuf pour askan wi bokk. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ci ci ci kon donc yow mën nañoo jàpp na yéen daal euh, Abdoulaye docteur Abdoulaye ñaan Euh, ci projet yi nga xam te ne moom fas yéene defal askan wi. Mhm. xëy mi rek la est-ce que yéen a ngi xalaat tamit pardon est-ce a li nga xam si ne mooy mbirum assainissement bu Touba wala genre. waaw xam nga xam nga maanaam compétence su euh, compétence su conseil daal dafa am fu mu yem. Mhm. dafa am fu mu yem xam nga ki nga xam ne euh, nekkagul dara. jël alalam ci poosam def assainissement kooku jàpp naa ne bu doonee dara ñu dénk ko alalu askan wi. mais mais attention attention mën na ko mën na ko def tamit pour politique. nit ki mën na nga def dara ngir politique. ak def dara ngir da ngaa dëkk fii te war ko fee def du benn. du benn waaw benn du benn parce que tey jii loolu noonu bi ñu koy def sax politiser wuñ ko tey jii doo dem ci réseaux sociaux ba fekk ko fa. dañ ko defoon ngir lan daf ko war a def ndax Touba la dëkk Darou Khoudoss la juddoo fi la yaroo bu njëkkoon xëy na sama classe gi ñoo nekk fii di ko wax nii mhm. mais moom dafay def lu bare bari te boolewu ko kay wax mhm. tey jii bu ko neexoon bu ko neexoon tey tey tey mu siiw politiquement def ñi ni ñenn ñi def jël ay dossier di xuloo di xasante di nangam mhm. waaye nag munoo yor yarub Touba juddoo fi màggee fi ba pare bokk ci ñi xuloo ko saagante ngir nit ñi xam la déedéet moom lu muy def rek ci xam-xam koy def ak def yàlla tax voilà Euh, directement dañuy dem ci suma juumul avant dernière question wala dernière question bi euh, vote bi nga xam si ne mooy vote local bi élection municipale ak élection départementale. Mm-hmm. vote bi ñu bëree bëri ci askan wi ëmb na leen naka lay demee. nga leeralal ñu ko rek ci tënk. waaw bala may dugg ci élection yi naka lay demee dama naan leen dama naan askanu Touba wala askanu département de Mbacké nañ nañ nañ nañ gën a yeewaat politiquement parce dañuy dëkk rek dañu nax ndax yooyu nag dafa war a jeex dafa jot sëkk ñu mos boroom xam-xam boo xam ne am na xam-xam am na yar bu pare engagement mate na ko. te nangoo liggéey. gis nga élection locale yi du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Ablaye Wade du mbirum Macky Sall du mbirum keneen sunu mbir la ñun. askan ñun askan wi ñoo war a tànn kan moo ñuy jiite nit ñi nañu nañ bàyyi voté ndax diw. par exemple tey bu ñu nee Ousmane Sonko yeewu askan wi la bokk wala keneen yeewu askan wi bokk déedéet bu ñu voté bu ñu voté ndax moom xam nga tax parce que boo voté ngir Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko kan la la tegal kan la investir dama bëgg ñu bañ a jaawale projet par exemple ñu ne projet Macky Sall projet Benno Bokk Yaakaar. Hmm. ak projet conseil départemental wala projet Matar Diop. wala boog ñu ne projet Yewwi Askan Wi ak projet Pastef du benn c'est diamétralement opposé du benn. comprendre hmm. parce que dama doon dëgg ñoo anti système nañ bàyyi politiciens yi leen a ba pare ñu jël koo xam ni jël ko ñu investir koo xam ne ni waxuma la système bi waaye bu système doon nekk ni dama naan la moom mooy système bi ndax koo xam ne nekk nga nekk nga député nekk nga président conseil régional nekk président conseil départemental nekk maire tey ngay laaj troisième mandat kooku yàgg na ci système bi kooku dañ ko waroon laaj lan la defal mu ne lii laa leen defal ñu ne ko demal noppalu ji tey kooku la yeewi askan wi investir may yee Sénégalais parce que mag ñu bëree bëri dañuy woote ngir Ablaye Wade may wax ne ku voté ci bulletin wàllu Sénégal voté loo Ablaye Wade Ablaye Wade maître tali mënatuñu ko defal pare na lam ñu mënoon defal ci fukki at ak ñaar defal nañu ko ba noppi waaye kan la ñuy imposé. un certain bu ñuy wat wateluñ en tant que Ablaye Wade mais dañuy wat en tant que son parti. non xam nga dama lay wax benn affaire ci laa jëm parti dëgg la ñu ngi ñoom ñi ngi ñi ngi imposé Karim mais Karim Wade dañ koy imposé mais parewul exemple laa lay jox. ni ñu mag ñi nga xam ne dañuy woote ngir Ablaye Wade ñooñu laay wax. parce que bëri na mag ñoo xam ne fu ñu gisee ne Ablaye Wade ci lii la bokk rek ñu dem voté ji mais xamuñu sax après njëriñ Ablaye Wade lay woteel wala kamu a jeex parce que ak ñaar lam la mën a defal mu defal la ko ah la mën a defal mu defal ko lam tëlee ñu xam ne tëlee na ko kooku mu dem retraité wax ne Ablaye Wade mënutuñoo defal robinet ndox mënutuñu koo xëccal kon nañ xool ndaw ñi nga xam ne ci dëkk lañ dëkk am nañ engagement mu nekk président la république ñu ànd ak ñoom Abdoulaye def na fi dara de. de non néew ma ca boo gisee askan wi topp ko tamit. néew ma la néew ma la de. si def fi dara. may ma tuuti. Mhm. ginaar du topp kuy taxani bàyyi ku jëm ci dàgga ci. boo gisee mag ñi surtout yow yaa ko wax sax. Mhm. boo gisee ñu sonn ci di topp Abdoulaye Wade c'est parce que dañoo gis lu ko jar ci Abdoulaye Wade moo tax. déedéet keneen ku nekk keneen beneen politicien bu fi nekk tamit bu defee li xam moom la def ñu topp ko. xam nga dama ne la. Mhm. Abdoulaye du ma la dama ne lim ñu mën a defal defal nañu ko ba noppi. def loolu. Mhm. ñu mën a defal defal nañu ko ba noppi ci fukki at ak ñaar yi nga xam ne gouverné na. Mhm. waaye nag li ci suñ kanam Abdoulaye mënutuñ ci defal maître tali léegi nañ xool keneen kuñ mën a àndal. moo tax may leen yéen da ngeen doon nit ñi askan dañ doon votel Abdoulaye Wade ndax taalibe la waaye xam ne Touba la juddoo fi la yoroo fi la néppam nekk am xam-xam ñoom am ba pare am sax buñ amul foofu laay waxee Mhm. parce que ñu bëree bëri may wax ne nag ne liste boobu di wàllu Sénégal ñu ne Ablaye Wade def ca ay kiiw Ablaye Wade ak nangam nangam Ablaye Wade néew ca ku ñuy wax seex Mbacké moo ca nekk Cheikh Mbacké moomu noonu tey mu nekk président groupe groupe parlementaire bu bu bu PDS par exemple tey di fay fa am fa ay millions te kenn mënu maa wax lu mu defal dëkk bi. lépp ci boppam la koy def kere ay parking fii nangam nangam bu génnee di di doxi wane ne man la Ablaye Wade def fii loolu doxul. nit ki eh, de booy eh, booy sab da ngay kuy dem ak koo xam ne amal na njariñ ñu dikkaat tuuti ci question ñu dikkaat tuuti ci question bi rek hmm? euh, vote bi jëmi vote bi nga xam si ne moom lañ dëgmal élection yi xam ne moom lañ dëgmal bu demee ci vote bi naka lañ ko war a def waaw élection yi day élection yoo xam ne euh, ñu bëri surtout département Touba sax laay wax xamuñu enjeu bi dëgg-dëgg hmm. euh, commune bi sëriñ bi day samp ku ko soob defe naa samp na ki mi samp ba pare ñun loolu amuñu ci yàgg-yàgg wax dëgg yàlla ndax taalibe ci liñ judd ci foofu lay doon bu weex fas wa askan wi ne leen bopp bu ndax la jël leen bu weex ba tall ndax ca jàmm ne dugal ko ci urle ba su ngeen génnee nag am na fu juróomi liste nekk lan moo tax war ñoo laal fas bi fii moom luy bopp fas duñ ko laal man loolu laa gëm bopp fas yi ku ko voté mooy voté nga Macky Sall troisième mandat daanaka bopp fas moom ku ko laal rek mooy yaa ngi jàppale Macky Sall ci troisième mandat jàpp naa ne sénégalais yi rawatina waa Touba troisième mandat waxuñu ci dara kon boobu nañ ko bàyyi na le jël bu weex ba dugal ko fi suñu génnee am na juróomi liste yu tegee. léegi bu weex boobu lan lay signifier. bu weex bi mooy neutre mooy yow moom neutre nga. botooloo ki fi nekk botooloo. nga parce que liste sëñ bi moom kenn mënu ko tee jàll jàll na ba noppi. kenn mënu ko te jàll te boo voté day jàppale boo boo ko jëlee dugal ko ci urne ba day jàppale Macky Sall troisième mandat. parce day mel ne day mel ne sénégalais yi wala boog askan ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy bàyyi mu ngi koy jox bopp ba léegi léegi nag soo génnee nag des na juróomi liste mooy bi ma mooy bu baax bi mi ngi ne di tege mooy diisoo ci xam bi mhm. euh, ak yeneen ñeenti yi mhm. may wax ne pour département de Mbacké changer politiquement indi fi ay borom xam-xam liste bu verte bi nga xam ne mooy diisoo ci xarnu bi te am ñaari loxo yu weex yu jàppante boobu mooy list bi gën ci département bi boo génnee nag ngay doog a voté ci ci ci ñeent yooyu ci juróom yooyu ngay jël. bu tànn ci bu la neex. Las euh, euh, ñu ngi lay jaajëfal xanaa nga dikk rek si kàddu ku mujj li nga xam si moom ngay kii mu ngay tëjee. waaw sama kàddu gu mujj mooy sant bu baax. Euh, lu ci suñu borom la lu ci dëng mati du doomu aadama la mm-hmm. di wax ne daal élection yi di ñaan bu baax it. élection yi ñu dugg ci jàmm euh, génn ci jàmm suñu borom may ñu ndam ñu lu sedd guy guy guy guy incha allah jërëjëf. Hmm. Euh, jërëjëf sëñ Moustapha Diakhaté ñu ngi lay jaajëfal encore delluwaat ci présentation rek mi ngi nekk chargé de communication coalition diisoo ci askan diisoo ci xarnu bi. ñu ngi lay jaajëfal ci disponibilité bi ak euh, kàddu yu am solo yi xam ne yëkkati nga ko fii xam naa ba la may tëj rek damay jaajëfal ki nga xam si ne moom ma solo tuuti si tey di Assane Dieng Assane Balla Ndiaye bi ngi nekk fii ci tubaa marché Ocass ci marché Frott ñoom nag euh, seen antum seen boutique ñu ngi ko tuddee boutique Touba Touba Taïf tissu waa kër Serigne Mbacke Soxna Lo euh, dañuy jaay bépp genre tissu boo xam ne mu nga bëgg rek moo xam Getzner la moo xam genre tissu boo bëgg rek ñu ngi fii ci marché Ocass euh, ku bëgg ci tissu yi mën nga jokkoo ak moom ci jokkoo ak ñoom ci numéro téléphone yi di 77 585 88 41 wala 77 346 06 52. wala 76 858 15 08 Baye Assane Dieng waa kër Serigne Mbacke Soxna loo mu ngi noonu kon nag yéen ñi xam si ne bëgg ngeen ay tissus yu am yu baax euh, jamono sedd jamono tànga yëpp mën ngeen a gaaw jokkoo ak ñoom. Euh, damay jaajëfal bu baax a baax euh, sama téyeer bi nga xam si ne moo fi jaar tey di ko wax Baye Modou Bey Baye Modou Bey moom itam xale bu mën a ñaw la nekk fii ci Touba marché Ocass day ñaw ñaw góor ñaw jigéen ñaw boo xam si ne moom soxla rek boo xam ne méngoo na ak jamono tamit. Euh, mi ngi nekk fii ci Touba marché Ocass euh, centre commercial euh, waa centre commercial Kazu Rajab centre commercial Kazu Rajab Rue Nana boo taxee Rue Nana rek koo fi laajtee centre commercial Kazu Rajab dañ la ko wan bu fekkee ne yéen ñi xam si ne bëgg ngeen ay ñaw yu rafet ñaw yu méngoog jamono bu leen xel ñaar ci jokko ak bay Modou Bey Bey Couture ci numéro téléphone yi nga xam si ne ñoom laay cité nii man nga jokkoo ak moom ci numéro téléphone yi di 77 342 24 94 wala 76 382 12 10 ñaar numéro téléphone yooyu bu fekkee ne bëgg ngeen ñëw yu mucc ayib yu méngi ak jamono bu leen xel ñaat ko ak euh, Baye Modou Bey <laughs> jërë ngeen jëf. Euh, ginnaaw loolu itam ñu ngi jaajëfal suñu mbokk internet yi xam si ne ñoo doon topp suñu émission bi di la voix du peuple une fois suñu invité bi di leen jox di dajee ci beneen émission jërë ngeen jëf. thank you